après bu juge Sabassy Faye jëlee décision sa Ziguinchor jox ñu dëgg jox Ousmane Sonko dëgg ne nañu delloo Ousmane Sonko ci fichier électoral bi nañ ko jox ay fiche de parrainage am ministère de l'intérieur ak waa DGE dañu bañ ba tëdd si suuf lank ne duñ ko daf mais découragé wuñu ñu continuer combat bi bu ñu continuer combat bi commission électorale nationale autonom Sénat joxaat ñu dëgg bind bataaxal barki démb DGE ne na DGE jox Ousmane Sonko ay fiches de collecte de parrainage mais ñu gis ni DG bindaat bataaxal ne moo bañ lank na du ko def te bataaxal boobu bañ boobu tegu ko ci yoon tegu ko ci dëgg teg ko ci loi yi teg ko ci règlement ñu gis ni nag euh, DG daa mel ni daa fippu DG daa mel ni rébellion lay def DG daa mel ni bokkutoo ci administration te DG daa mel ni daa am ñu mu ragal ñu mu ragal ku mu ragal yaakaar naa mooy Macky Sall ba pare ñeme askan yàpp askanu Sénégal parce que askanu Sénégal moo fi teg loi yi si turam nañ fi defaree loi te DGE daa war a respecter code électoral notamment article 47 am mais gis nañ ba depuis le 29 septembre DGE mu ngi bañ du ñuy jox suñu fiche de parrainage candidat Ousmane Sonko lu tax mu bañ ko mooy dugg na ci politique dugg na ci par loo jàpp ni Ousmane Sonko su nekkee candidat premier tour day gagné élection présidentielle te Amadou Ba du ko mën a def face candidat Macky Sall nga xam ne mooy Amadou Ba nga xam ne il fait pas le donc tey ñu dellu si waat bu ñu yore euh, këyitu Sénat bi commission électorale nationale ñu ñëw bu ñu présenté dañu njëkk ne duñ ñu bàyyi ñu dugg mais bu ñu waxtaanee ñoom nañu nag ñun ay responsable nañu man député la huissier la àndal ànd ak ay responsable politique de premier rang muy dàmbooj muy ñoom Maïmouna Bousso ak ay honorable député nga xam ne ñoom fi taxaw donc mënoo leen ñu tontu loolu donc tey il faut ngeen fexe ba ñu gis une autorité de la DGE ci loolu directeur des opérations électorales euh, le commissaire Abdou Aziz Sarr recevoir nañu ñoo ngi ko ci remercier mais lum ñu tontu en tout cas euh, ñun euh, dalul suñu xel parce que lum ñu tontu dafa ne moom mënul wax dara lu ëpp lu communiqué DGE bu mu génnee barki démb te yéen gis ngeen communiqué DGE bi communiqué DGE boobu maanaam tappale la ay caaxaan rek a ci ne waaw mooy moom ak communiqué bu njëkk bu njëkk génnee parce que amul benn référence juridique amul benn argument juridique dañuy loo dañuy tappale pour gagner du temps te loolu damaa yaakaar ni nag dañ ko complot ak waa ministère de l'intérieur ak notamment le ministre de l'intérieur nga xam ne APR la bokk Sidiki Kaba parce que ay service am ñoom ñoo war a appliquer décision bu Ziguinchor muy DGE ak daaf mais gis nañu DGE bañ na DAF également moo ngi ñoom ñëpp ku nekk toog sa biro tëj sa biro mais tey bu ñu ubbilee amul dara loo xam ne wax nañ ñu ko lu bees lu dul ah xool leen communiqué bu leen bindaloon communiqué boobu loolu daal nañ si mën a yem ñun nag lu ñuy laaj mooy nañuy jox suñu fiche de parrainage parce que yoon jox nañu dëgg ñaari yoon euh, président tribunal d'instance de Ziguinchor jox ñu jox nañu dëgg commission électorale nationale autonome nga xam ne mooy saytu lépp loo xam ne mooy processus électoral nga xam ne dafa sut e ci wàllum hiérarchie ci wàllum processus électoral laaj na DGE ne ko na joxe fiche de parrainage mais DGE moo ngi bañ ba léegi donc nañu jox suñu fiche de parrainage ñu mën a comme candidat yëpp dam collecté ji ay parrainage tey te saisiraat nañu commission électorale nationale autonome muy Sénat laaj ko comme que DGE bañ na DGE lank na DGE daa ragal Macky Sall DGE daa ànd ak waa APR ak waa bennoo Bokk Yaakaar bëgg a xeex Ousmane Sonko na jël place su DGE moom lu ko loi may code électoral mën na jël place su DGE jox ñu fiche de parrainage yi donc loolu nañu laaj sena suñu avocat yi bind nañ Sénat te incha allah nañ jot fiche de parrainage yi du ñu tàyyi du ñu bàyyi du ñu sonn parce que suñu droit la Ousmane Sonko dina nekk candidat dina am fiche de parrainage am te incha allah dina remporter élection présidentielle 25 février 2024. combat politique bi nañ ko mënee fépp muy assemblée nationale ñun ñuy député muy responsable politique yu fi nekk nañu wax nañu dox nañu def lépp loo xam ne suñu sañ-sañ la ak suñu mën-mën. pour que Sénégal dellu si waat ci parce que dictature bii duñ ko nangu duñu bàyyi Macky Sall jël Sénégal ñu ko ko joxee bu muy ñëw en 2012 démocratie nañ ko jox mu bëgg fee jógee daf ko dictature loolu duñ ko nangu waaw donc Ousmane Sonko dina nekk candidat dina remporter l'élection présidentielle du 25 février 2024 je vous remercie jërëjëf voilà donc soo leen bëggee jël allez-y